asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa ne defal vidéo mbokk yi di remercier ñi xamante ne bu toogee jour dégguñu ma rek dinañ wala ñu message ma whatsapp moo xam ne ñoo ngi xaar information yi lan moo tax gisuñu la loolu ñoo koy def quoi donc ak ñi xamante ne euh, voilà ku xamante ne xel nekk na si moo xamante déggoo ko rek tout le temps nga naan Mouhamed la moo rendez-vous vidéo wala moom laay xaar rek maa lay jaajëfal di wax suñuy borom moo xam li ne sa xol de yàlla na ko yàlla defal parce que loolu yëg-yëg la loolu moo tax liggéey bi nga gën a am volonté volonté bi mooy euh, Sénégal am na déception toog nañu naa bàyyi liggéey bi mais ñi lay woo am yëg-yëg ci yow tax da ngay jëlaat rek liggéey bi commencé waat donc muy découverte muy yenn émission yi yëpp dina ñëwaat incha allah sur Senfootball TV donte euh, voilà gëj ko gis ndax coupe bi moo taxoon bokk internet yi damay ñëw rek wax si euh, Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye nag dafa déclaré Franc moom Olympique de Marseille mu benn club bu xamantene ne bu mu nekkee booy mais moment bu fa nekké wa Marseille am ñu centre formation il a fallu dafa joggé rappel waa Marseille si la ñu amee centre formation bu normal da nañ jouer ay match amicaux mais fa la yemoon quoi match amicaux lañu jouer ni mu jé ku nekk dem sa yoon donc mom bëgg na ñëwaat Marseille donc euh, ba tax na bo xolé taskatu xibaar yi nekk France tay mom lañu ñu lu ci mel la le Provence bi nekk Marseille Maritimo ay ay ay taskatu xibaar yoo xam Marseille lañu spécialisé wu génn nañ ci wax que ça soit sport que ça soit sax journal bu xamante day wax le lu si ni le Provence

ndeysaan na ay match yu ba ay cinq heures du matin ay match ay 100 match les sax ma loolu cent match xamni na la ko mën a parce que moom la championnat Japon ak championnat Sénégal yi fep fep fépp lay xam ay joueurs quoi joueur boo amé temps rek dem gëstu loolu loolu passion am la quoi donc ben ilman Ndiaye ni jàppale ni xam na ko xam yu njëkk coupe du monde bi day gëna jox visibilité Iliman Ndiaye mais ñi ay genre Longoria manam président Marseille motax ma lay wax de xam na ko xam yu njëkk quoi donc à voir euh dinañ interview ci dossier bi mon seul problème c'est le côté transfert xam on sait que propos rek limu woné ci pas coupe du monde bi kese li mu wane championship déjà 9 buts ak limu mu woné euh, coupe du monde ni rek euh valeurum dafa yok. valeur Iliman c'est pas c'est plus le Iliman de l'an 2020 wala 2021, c'est Iliman 2022 bi. ak liñu ñu ci ak anglais liñu wax ci mom yëpp donc euh, pour Marseille jënd que lu mën a c'est faisable hein, mais ce sera euh, difficile maintenant nak avoir janvier bi yakar ma bu fekkee nak Marseille dem na demaat na Ligue des champions Euh, bokkaat ci podium bi ba qualifié surtout jël deuxième xaalis bi muy am noonu euh, ak yenn transfert du si ñàkk ñu bàyyi ñeen nañ dem benn Iliman Ndiaye mën na fi ñëw vu que Iliman dunia uh, ke brina e pour position mais olympique de marseille bu ci nekké capable gay mu ngi fa ke ke ke ke bamba ñe mo ngi fa ipse man na wu ci lool du ñak waxtan nak sen ñom club de rêve la bëgg na fa jouer et eh, dina mo permettre man mi enfin parce que tout le temps tout le temps gis ñu bari ñu mohammed la ta demo qatar mo ta demo qatar du sama ciobare gaay du sama ciobare xeyna peut-être mo na le bon liguel ak ñen ñu xamantene man mané det peut-être ay ay pari foot ak yoy nonu ñu bu ma lii woon xëy na mën naa dem Qatar mi man parce que maa bëgg lii ak ñooñu ak yeneen quoi donc dama gëm ne live bi escalier la bu ma war a dem naa dem te man fi ma bëgg a dem mooy Marseille bii Marseille bii moom incha allah xam donc que gars yi teg ma loxo ñàkk ñàkk ma teg loxo man moom dinaa jëm lu ma man si sama sama sama moyen bopp incha allah lu ma bëgg la parce que réaliser sama rêve def Marseille quoi donc Iliman dina tax ma gën a bëgg a demaat <laughs> yàlla bu ma fa dem def ñoom interview ñoom Pape Gueye ñoom Bamba Dieng ak moom mi lu mën a nekk la c'est faisable quoi donc ñaanal leen ma incha allah en tout cas sama club de cœur laaxatuma si naa ñëpp nag seen club quoi mais souvent gars yi poser question boobu mais Iliman Ndiaye dem Marseille moom dina ma gën a dooleel ma gën a amal fit dèjà que nii rek bëgg naa fa dem Bamba Dieng fa Pape Gueye mais Iliman Ndiaye dem mais mon frère loolu beneen mbir la beneen mbir la pour man quoi xam donc damay gën a ma dem fa quoi donc mbokk yi lii mu nekkoon benn xibaar boo xamante partager ak yéen vu que tey defuma benn vidéo ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV asalaamaaleykum